Alioune Badara Thiam ay kan lan moo tax mu dem ci ñaar fukki ak juróom dëkk Afrique indi fa courant lampe waaye senegal gis ñu mu def fi lu bëri lan moo tax mu am ay jafe-jafe fii ci Sénégal ndax kat ñëpp xam nañ ne Akon daf ñoo yàgg sigil bu leen fàtte ne Akon ba muy nekk ci digg dooleem da daan way Sénégal. am na benn woy bu tudd Mama Africa am na benn clip boo xam ne dañ ko wane mu yore drapeau Sénégal rakam bu sol maillot Sénégal kon kii patriote la waaye ba mu ñëwee fii pour def li ñuy wax lighting Africa maanaam jéem a taal Afrique indi courant Afrique dafa am ay problème tey dama bëgg ñu waxtaan ci projet bu mag bu Akon bëgg def fii Sénégal mooy dafa am benn dëkk bu mu bëgg tabax jam ñaañoo bu tudd Akon Crypto City président Macky Sall may na ko suuf su bëri two thousand acres of land ay hectares hectares hectares ci booru aéroport bi sorwul géej gi Akon dafa bugg tabax benn dëkk dëkk boobu dafay am xaalis boppam ay coin la tudd coin mooy weccit mooy xaalis moom mu tuddee ko ay coin kon déjà inspiration bi xoolal rek tur bi ni mu jege ak waaw léegi ñu bëri ñuy wax CFA CFA na fi jógee na fi jógee mais Akon bu Akon boobu ñëwee mën na sax remplacer CFA. kon kii nit la koo xam ne day liggéey ci suuf mais kenn du fësal ay mbiram tey nag dama bëgg ñu waxtaan ci loolu lan moo tax Akon kenn du wax ci ay mbiram gis nañ fi benn sargal papam bi muy defal Mor Thiam waaye benn interview rek lañ ko gis TFM duñu gis Akon ci yeneen télé yi ci lu bëri bon ba muy def interview. Pape Cheikh Diallo di ko làkk wolof man jour boobu j'étais très fier kontaan naa ci moom topp ndax école dafa doon làkk ay olof yu wóor ndax kat bu leen fàtte ne benn jour mës naa ko gis Touba ndaw si laaj ko benn question ci wolof mu ne ko English English mais léegi école ay wolof yu leer lay làkkal boobu Ndour moo doon traduire. li ñu rek mooy école dafa war a gën a jaxasoo Sénégal yi gën a duggante musicien comme mu daan def ay temps dem ci Wally Seck dem ci Pape Diouf euh, si seen ay soirée gën a jaxasoo nit ñi. bu bëggee Sénégalais yi gën koo jàppale ndax kat ñëpp xam nañ dafay am problème ak Wally mais loolu war nañ ko mën a régler ndax ay affaire link lañ doon wax ak mu ne ko ci li Wally Seck wax link du noonu da nga war a liggéeyuwaat ba ci kanam te Wally Seck nee na loolu daf ko gën a dafa tax mu gën a góorgóorlu ci carrière waaw léegi lu ñuy wax rek mooy da war a xam ne ACAR dafa leb xaalis bu bëri chinois yi 600 milliards yu ko moom la leb te xam nañ ne chinois bu la lebalee six cent milliards di nga ko fay mën nga ko sax fay sept cent milliards kon ñun ñoo war a jàppale ECAD waaw parce que moom nee na dafa yaakaaroon ne six cent milliards xaalis bu bëri la waaye du dara waaw nit ku ñëw nag di jàppale Afrique ñun ñoo ko war a sargal man ne sargal bi ma def mooy ma way ko way ko benn way ndax liggéey bi muy def Lighting Africa moom laay way ci biir sama biir way xam nga way naa fi euh, Wally Seck soo bi mi ngi waaj génn am na benn way boo xam ne Youssou Ndour laa ko jagleel suñuy su yi suñu ñi nga xam ne tey ñoo sigg Sénégal bu ñu amee ay projet dañ leen war a jàppale mais ñun li ñu wax rek mooy Acad dafa war a gën a jaxasoo population bi président Macky Sall recevoir nañ ko gis nañ ko ci kon ñu ngi yaakaar ne pétrole bi tamit bu ñëwee Acad war na ci mën dugal loxo ndax bëgguñu suñu pétrole bi ak liggéey yu ko wër ñu gis fi ay naar di ko liggéey wala ay chinois di ko liggéey léegi lañ ci war a waxtaan ndax sénégalais yi suñu xale yi seen avenir gën a baax. ndax kat écran visionnaire la maanaam day nit la boo xam ne day toog di gis suba si moom li mu ñu bëggal africain dafa dafa fier ci peau noire ndax boo leen seetaanee film bi nga xam ne moom la Baaba Maal gagné Oscar ak académie bu ñu wax la Panthère noire Black Panther foofu da ngay fier ndax ay noir. ñoo defar dëkk bi ñoo defar film bi gàncax ay Oscar mais film boobu boo ko seetaanee da ngay gis doole nit ku ñuul Ekkan nag film boobu loolu la bëgg indi Afrique dafa bëgg africain yoo xam ne dañuy fier comme Égypte bu njëkk ba l' Égypte noire xam ne moom la Cheikh Anta Diop daan wax gàncax ngaa la ma encore une